bonjour et bon lundi ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak euh, télévision Futur Média dellusiwaat nañu ak yéen ni koy defee chaque jour diggante 11h45 euh, jàpp 14h euh, et quelques bienvenue dans Midi Plus mbaa jàmm ngeen fanaanee ñu ngi leen di ndokkeel di leen ziar gërëm leen nag ci. Euh, seen fidélité ak ni ngeen ànd ak programme yu télévision Futur Média ñu ngi gërëm euh, équipe yi nga xam ne ni ñoo fi nekkoon ci suba ak léegi fajar gi ñu ngi àndoon ak euh, Fatidien ak rédaction bu télévision Futur Média ñu doon leen jox matinal info bu mag boobu la nga xam ne nii mooy info matin bi mu jeexalee nag ñu xawoon pause tuuti doog reprendre direct yi fas yéene ànd ak yéen ba ca kanam ci télévision Futur Média alors cocktail bi dootuma leen ko fàttali information divertissement plus des invités tey nag dinañu am invité bu xaw exceptionnel dañu koy boole euh, ci tranche de vie yi nga xamee ni souvent dañu leen koy baaxee xam ngeen nii euh, mu ngi bëgg a yàgg ngeen di seen ab sénégalais boo xamee ni euh, daanaka ay mbalit lay solo voilà ñu tuddee ko Sénégal propre mu nekk xale boo xamee ni objectif am selon waxtaan wi nga xamee ni yàgg nañu ko séq ak moom dafa bëgg Sénégal gën a set moo tax pour sensibiliser sénégalais yi ci gën a yokk seenu cet ci wàññi sànni mbalit yi. Euh, foo ko fekk dafay gàlloo ay mbalit yu bëri alors il viendra ci plateau bi bu ca on parlera de son histoire et euh, pourquoi mu mu muy jël ay mbalit tout le temps di ko teg ci yaramam. voilà donc euh, combat wam est-ce que ñu ngi ko ciy jàppale autant de questions yoo xamante ni bëgg nañu ko ko laaj parce que euh, voilà lu ne am na ci réew mi donc moom it ci réew mi la bokk e am na ay initiative yu am solo yoo xamante ni moo ngi ci on en parle euh, tout à l'heure dans cette émission et puis euh, dinañ leen proposer ab carnet de voyage boo xamee ni euh, dinañu yóbbu euh, fi nga xamee nii moo di Baleng ab askan la bu nekk ci dëkk bu ñu naan Cameroun ñu am nag tradition ak aada yu toll daanaka ci huit cents ans donc on va voyager c'est vrai que bëri ngeen ci Sénégal rek ngeen miin wala seen cosaan waaye nag àddina dafa yaatu en point boo xamante ni des fois tu peux voyager et découvrir des choses yu la mën a impressionner donc on a fait ci askan boobu boobule euh, dinañ ca ànd ak euh, suñu envoyé spéciaux yi nga xamante ne ñoo ñu nekkal fële euh, ca Cameroun Mamadou Ndiaye ak Ahmed Niang y' a pas que cette Coupe d' Afrique ils ont fait des visites guidées tey bokk na ci fii ñu nar a dem pour découvrir ce peuple ñu tuddee leen ay Baleng. ce sera notre carnet de voyage et puis euh, génnuk àddina ki fi nekkoon président wu Mali di IBK Ibrahim Boubacar Ibrahim Boubacar Keïta euh, on en parle tout à l'heure c'est vrai que depuis que euh, ñu dégg génnuk àddinaam daanaka tous les médias parlent de cet ancien président il s'est donc éteint il s'est éteint ce dimanche ca këram njabootam moo ko wax une information donc qui a été confirmée par euh, plusieurs membres Euh, de cette famille on en parle euh, tout à l'heure ci euh, Midi Plus bi donc loolu ay sujet la yu am solo Euh, yoo xam ne nii euh, préparé nañu leen ko euh, bis bi nag tey dafa tombé ak lundi 17 janvier 2022 selon une certaine tradition ci ay dëkk tubaab lundi 17 janvier bii tey ñoom Blue Monday la ñu ko tuddee alors Blue Monday est présenté comme le jour le plus déprimant de l'année maanaam bis bi gën a soof ñoom noonu la ñu tuddee est-ce que tu peux mettre ça en plein écran comme ça je puisse que je puisse lire pour téléspectateurs yi li nga xamante ni moo jëm Euh, ci euh, Blue Monday bile alors Blue Monday euh, pourtant après vérification lu tax ñoom ñu tuddee ko bis bi gën a déprimant bis bi gën a soof ci bis yi il pare que ca Grande-Bretagne dañu ko Royaume-Uni plutôt foofu la juddoo au début des années mille ñu tànnoon jour bi doon def benn publicité bu compagnie aérienne donc depuis lors ñu jàpp ni euh, lundi bi 17 janvier mooy Blue Monday mooy bis bi gën a soof bis bi gën a déprimant euh, loolu nag c'est pas euh, c'est pas vérifié par les scientifiques il faut préciser mais quand même il y a beaucoup de personnes qui confirment et qui pensent que effectivement cette journée elle elle est elle est déprimante voilà donc ñu tuddee ko lundi bleu ci anglais euh, ci français plutôt en anglais muy euh, Blue Monday donc le ce jour donc qui se définit comme le euh, plus déprimant de l'année cela n'a pas beaucoup de sens aussi il faut le rappeler parce que dina neexam du neex yàlla rek xam quoi donc jour yëpp jour la lundi comme mardi donc ne vous inquiétez surtout pas même si bu fekkee am na ñoo xamante ni gëm nañu ni bis bi tey c'est un lundi bleu bon après di ngeen ma wax ni Euh, lundi moom neexul diggante neex neexu samedi ak noppalu dimanche lundi yëpp des fois dafay déprimant surtout quand on se réveille le matin et que teelu ñu tëdd veille bi euh, dimanche y a même des gens qui disent que il leur faut un autre jour euh, diggante lundi ak mardi parce que lundi dafa xaw a diis mais bon nous on est là quand même pour vous accompagner donc tey dans certains pays Blue Monday la ñu ko tuddee muy lundi bleu voilà il s'est passé tellement de choses euh, dans ce monde-là euh, ci bisu 17 euh, euh, janvier Pape Samba Thiam me disait que am na ay éphémérides oui am nga ay éphémérides montre-moi yenn ci éphémérides yi nga am bu ko defee ma xool est-ce que natte nga est-ce que yow réellement li xew mu sa xew ci àdduna xam nga ko alors là je vois le président des États-Unis ak jabaram Michelle Obama Euh, je vérifie, euh, 17 janvier, pourquoi tu veux qu'on parle de Michelle Obama Ah, tey la anniversaire am d'accord bravo Pape Samba t'es un bon réalisateur tu as bien trouvé que tey 17 euh, janvier euh, mooy euh, anniversaire bu ki fi nekkoon première dame bu États-Unis euh, muy Michelle Obama elle est donc née le 17 janvier comme tey en 1964 euh, ci dëkk bu ñu naan euh, Chicago elle est avocate euh, mu ngi tàmbali sëyam ak Barack Obama en 1992 voilà elle est avocat elle était sénatrice elle devient donc l'épouse du 44e président des États-Unis nekkoon fi première dame bu donc moom Michelle Obama Euh, tey la anniversaire am j'ai bien aimé euh, ce discours ce jour-là euh, Barack Obama dafa taxaw taxawaayu buur yàlla dëgg jàkkaarloog jabaram joxar bi ko rëy loo xamante a confirmé ce jour-là évidemment comme on dit tout le temps a une grande dame Pape Samba qu'est-ce que tu as dit arrête qu'on se parle tu me fatigues oh là là teg ko ah da ngeen di yàq allure. Michelle LaVaughn Robinson, girl of the South Side. for the, fa- for the years, you have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend. You took on a role you didn't ask for, and you made it your own with grace and with grit and with style and good humor. We made the White House a place that belongs to everybody. And a new generation sets its sights higher because it has you as a role model. So you have made me proud, and you have made the country proud. Michelle? voilà donc pendant que je euh, message bu euh, Barack Obama jëmale ko ci Michelle Obama on a eu quelques problèmes euh, techniques voilà malheureusement tous les mais bon on avec merci donc Pape Samba pour cette vidéo donc 17 janvier 1964 ci la Michelle Obama juddu nekkoon première dame bu états elle est une fois venue euh, fii ci euh, Sénégal bi mu fi ñëwee sax am na ay kàddu yoo xamante ni ci wolof la ko mais on n'aura pas le temps de vous montrer euh, ce passage alors alors je vois Mohamed tu veux parler de qui kan ci Mohamed yi ah Mohamed Ali Mohamed je vérifie pour lui pourquoi nga teg ko tey 17 janvier ah moom tamit il est né un 17 janvier moom Mohamed Ali euh, c'était en 1942 il est décédé le 3 juin 2016 euh, ca Arizona euh, je pense que xam ngeen ko moom Mohamed Ali c'est un boxeur américain mu ngi doon évoluer ci catégorie poids lourd et il est considéré comme un des plus grands boxeurs de tous les temps maanaam képp kuy boxe ci àddina dañu jàpp ni kii moo la dàq box moo dàq boxer moom Mohamed Ali ñun nag Sénégal li taxoon ñu bëgg ko mooy ab jullit la woon euh, souvent on partage euh, ay images yu bi mu demee Makka moom Mohamed Ali tout le monde le connaît et euh, voilà laata muy décédé jotoon na changé nekk mag comme quoi àddina moom loo dëgër dëgër dëgër dëgër dëgër dëgër dëgër di nga dem ba màgget xaw yàqu donc Mohamed Ali qui accède donc à la notoriété internationale quand tu as quand il a eu 18 ans Euh, mu remporté euh, médaille d'or des poids lourds aux Jeux olympiques c'était en 1960 ci dëkk bu ñu naan Rome 1967 euh, mu nekk trois ans après avoir remporté le championnat du monde des poids lourds mu am taxawaay bu exceptionnel ci wàllu sport donc Mohamed Ali pour rappel il est né le 17 janvier comme tey c'était en 1942 et puis il est décédé le 3 juin 2016 bravo Pape tey vraiment je sais que je moins bête parce que tu m'apprends des choses et quand tu mets euh, bu ñuy seetaan je fais des recherches baaxee ko téléspectateurs yi ça peut toujours vous servir on ne loolu la ñu tuddee culture générale xam dafa baax comme ñun lépp la ñuy cas donc baax na on vous donne des informations assez précises sur certaines choses donc Mohamed Ali que nous aimons il comme tey le 17 janvier 1942 Qu'est-ce que tu as d'autre ah alors kii peut-être du ngeen ko xàmmee mais moom mooy Patrice Lumumba alors Patrice Lumumba est-ce que tur bi ça vous dit quelque chose bien évidemment donc je vérifie pour Patrice Lumumba ah par contre moom il n'est pas né tey comme tey 17 janvier mais il est il a été assassiné plus tôt comme tey euh, 17 janvier 1961 alors moom Patrice euh, Lumumba euh, homme d'État congolais la nekkoon premier ministre bu République démocratique du Congo euh, diggante 1960 jàpp 1964 diggante juin ba septembre 1960 mu nekkoon principal figure indépendance bu Congo belge ba léegi xamuñu deewam lu ko waral y en a qui disent que Belge ko rey yenn ci ay belge itam ñu ngi wax ni ay congolais comme moom ñoo ko rey voilà donc muy euh, koo xamante ni bokk na ci icônes yi ñu gën a ràññee ci wàllu politique euh, fii ci euh, Afrique souvent vous entendez dans quelques-unes de des chansons yu DJ Awadi mu ciy tudd Patrice Lumumba voilà donc pour la petite histoire kooku mooy Patrice Lumumba il est décédé un 17 janvier comme tey c'était en 1960 il a été donc assassiné après avoir été premier ministre foofu ci République démocratique bu Congo le 2 juillet 1925 voilà c'est l'un des plus grands hommes d'État yu Afrique merci Pape Samba je pense que tu plus de euh, tu d'image pour parler de de cette date jeexal nga mais merci maintenant c'est à li ma mbëkk li ma njëkk a bëgg waxtaanee mooy PAGOTRANS alors PAGOTRANS euh, mooy programme d'appui euh, à la gouvernance ñu jagleel ko lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu dem beeg dikk bi ngir gën a ñaax nit ñi Euh, ci wàllu accident yeeg euh, wàllu wér yaram ak comportement yi ci tali yi surtout jàppale ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllu transport euh, fii ci Sénégal ñu tuddee ko PAGOTRANS donc programme d'appui à la gouvernance dans le secteur des transports terrestres du Sénégal loolu mooy PAGOTRANS PAGOTRANS nag Union européenne ñoo ko financé ngir jàppale ministère des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement Euh, ngir améliorer comportement wu conducteurs yi ak ñi nga xamante ni ñooy jëfandikoo tali yi fii ci Sénégal euh, projet bi nag dina dem daanaka ci ñeenti thématique bu njëkk bi euh, mooy wàllu sécurité routière Euh, bi ci topp mooy wàllu surcharge beneen bi ci topp mooy environnement ak santé ba ca tegu itam mooy renforcer euh, les femmes dans le secteur du transport c'est vrai que souvent euh, quand on voit genre une femme boo xamante ni dafay dawal bus wala camion wala autorail daf ñuy impressionné donc Pagotrans itam jóg na ngir jàppale jigéen ñi ci wàllu renforcer leen ngir gën leen a taxawu ci wàllu secteur transport bi Euh, donc ñoom ñu ngi sensibiliser ci lépp loo xamante ni jëm na euh, ci wàllu sécurité routière euh, ñu ngi waxtaan daanaka ci ñi nga xam ne ni ñooy faatu fii ci Sénégal daanaka ëpp na 800 nit yuy faatu ci ay accident par année ñoom nag bëgg nañu inviter vraiment sénégalais yi ñu changer comportement Euh, chauffeurs yi gën professionnel particulier yi itam gën a bàyyi xel euh, ci karange gi ci euh, yoon yi di yore téléphone portable au volant baaxul man mii dama koy def waaye en quelques secondes mën ngaa faat sa bopp wala faat ay bakkan vitesse bu ëpp distance euh, de sécurité le stress la fatigue au volant euh, qui sont aussi plusieurs facteurs yoo xamante ni dafay augmenter considérablement euh, risque accident yi euh, donc ñu ngi euh, gën a ñaax sénégalais yi pour ñu gën a góorgóorlu ci lépp loo xamante ni jëm na ci suñuy comportement ci tali bi donc Pago Trans qui rejoint bi di plus désormais dinañ leen jox ay sensibilisation yu am solo jëm ci seen taxawaay donc pour rappel Pago Trans mooy programme d'appui à la gouvernance dans le secteur des transports transport terrestre du Sénégal euh, qui est donc financé par l'Union européenne pour appuyer euh, waa ministère des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement ngir gën a mun a améliorer comportement wu conducteurs yi ak ñiy jëfandikoo oto yi euh, ci tali yi fii ci Sénégal mu et puis nous allons on va en profiter rendre hommage à ki nga xamante ni moo di euh, IBK oui noonu lañ ko daan woowee moo fi nekkoon président bu euh, Mali c'est vrai que fan yii yëpp àddina yëpp a ngi waxtaanee Mali euh, dëkk la bu riche. Euh, ci wàllu histoire waaye dëkk la boo xamante ni ku ne xam na euh, jegeem ak euh, Sénégal on a des familles on a des amis on a des parents yoo xamante ni Mali la ñu dëkk diggante Sénégal ak Mali defe naa lu yàgg la ki fi nekkoon président wu Mali boobu nag di Ibrahim Boubacar Keïta ñu ngi ko renversé woon ci coup d'état en 2020 il est donc mort Euh, il a été élu euh, président du Mali entre euh, en septembre 2013. Il avait été renversé par des militaires août 2020 dimanche bi nag la génn àddina ca këram. njabootam moo ko xamle information la boo xamante ni ñu bëri ñu bokk ci njabootam ñoo ko confirmé démb ci dimanche bi ibrahim Boubacar Keïta nekkoon fi président foofee ca Mali on vous raconte un peu son histoire ak Alassane Ba. Ibrahima Boubacar Keita génn na àdduna moom mi nga xamante ni moom moo nekkoon njiitu réew ca Mali mu ngi génn àdduna bi muy làkk juróom-ñaar fukkeelu atam ak juróom benn moom mi nga xamante ni moo jotoon jiite réew Mali atub 2013 ba jàpp atub 2020 ginnaaw ab coup d'état ay jegeñaaleem daal di ñuy confirmer xabaar bi ni mel waa AFP moom IBK ñu ko doon woowe noonu mu ngi juddu ñaar fukkil fan ak juróom-ñeent ci weerub janvier atub 1945 ca la mu nekkoon ab homme politique ca Mali jot na occupé ay fonction yu kawe lu ci mel ni ay njiitalu jëwriñ yi 1994 jàpp 2000 waaye itam njiitalu assemblée nationale bu Mali 2002 ba jàpp 2007 ñu ngi ko tabb nag président de la république bu Mali 2013 mu falwaat itam atub 2018 waaye nag ñuy fàttaliku ni coup d'état bi amoon atub 2020 ci ab contexte mouvement populaire bu am solo euh, taxoon ba mu jóge ci bopp réew mi ay militaire def coup d'état naka noonu bi coup d'état bi amee ba noppi ci la moom IBK def ab déclaration ne daal dinay renoncer li nga xamante ni moom mooy pouvoir bi ci pression bi nga xamante ni l'armée bi tegoon na ko mu ngoog Alassane Ba ñu ngi lay gërëm bu baax dañu dellu siwaatoon ci gëstu boobu la nga xam ni def nga ko ngir euh, wane lañu ak parcours kii fi nekkoon président wu Mali euh, te génn àddina démb di Ibrahima Boubacar euh, Keïta pour ñu ko gisutoon démb ci reportage yi leen rédaction bu télévision Futur Média jagleel dañu leen ko doon tegalaatal bu ko defee ngeen mën a bàyyi xel ci parcours ancien président boobule on va en profiter pour faire un clin d'œil à, à nos amis qui nous regardent depuis Bamako Baba nekk foofu ndaanaan bu mag ñu ngi koy nuyu euh, très adorable elle nous regarde tous les midis euh, ci euh, télévision Futur Média sànq dem nañu Congo on a parlé de Patrice Lumumba dem nañu fi nga xamante ni mooy Mali waxtaanee génnuk àddina ki fa nekkoon président di IBK on va continuer notre voyage ci beneen dëkk boo xamante ni mu ngi nekk fii ci Afrique dëkk boobu la nag xam ngeen ni fan yëpp foofu la ñuy amalee Coupe d'Afrique bi muy Cameroun. équipe yu télévision Futur Média ña nga wu ci dëkk bu ñu naan baa Bafoussam waaye profité nañ ci euh, démb ci dimanche bi def tour dem découvrir benn askan boo xamee ni foofee ca Cameroun ñu ngi leen di tuddee Baleng alors Baleng nag foofee ca Cameroun en tout cas tradition ancestrale bu am plus de huit cents ans euh, peuple boobu la nag ñu ngi dëkk ak yenn ci ay autorités administratives ñoom nag ñooy jouer rôle euh, régulateur social selon buuru dëkk boobu la ndax ñoom ñu ngi am buur ba tey ci foofee nga xamee ni Mamadou Ndiaye dem na fa àndoon Ahmed Niang d'ailleurs on va découvrir carte postale bi nga xam ne ni réalisé nañu ko ci dëkk boobu la nekk biir Cameroun. Cameroun réew mu fës lool la ci aada ak cosaan comme niñ koy gisee ci image yi fii ñu dem tey mooy peuple Baleng. Euh, la chefferie Baleng. ah royaume Baleng nag euh, boo ko gisee dafay représenter euh, lu yaatoo yaatu. ci fii ci bafu Bafoussam te sax mën naa wax ni dafay gën a yaatu ba ci Cameroun gi yëpp ndaxte boo xoolee eh, li ñuy représenté lu yaatu la ci ay nit. pour Cameroun tout entier. espace bi dafa am lu muy tekki ci ñoom case yi dafay représenté parfois ñenn ñi société bi yenn yi guerrier yi nga xamante ni ñoo jiite woon chefferie bi ñu ngi existe depuis quatorzième siècle. au quatorzième siècle il y a eu un. boo xoolee. Euh, ñi ngi fi nekk quatorzième siècle amoon na benn roi bu njëkk boo xamante ne mi ngi tudd Fondong moom moo njëkk a créé société Baleng nekkul woon fii nag euh, boo xoolee bi ñu demee ba ci dix-septième siècle la am beneen euh, roi boo xamante ni moom moo cha moom moo choisir nag faf ñu ñu ñu ñu changer site bi daal di koy teg fii mais fi ne nii nag boo xoolee kooku ci boppam moo tax moo sanc fi ñu nekk nii tey. ñoom nag dañoo organiser bu baax seen société bi dafa am ku jiite ñu koy duppee buur nekk koo xamante ni tamit ndaw la am ñeent fukki at ak juróom-ñeent. Euh, aujourd'hui je suis le. man maay ñaar fukkeeli euh, ak benn roi bi nga xamante ni moo nekk jiite communauté Baleng bi. la dynastie Baleng. ñu am mbégte jaar seen ay tànki maam moo tax lépp loo xamante ni lu ñuy nas la lu ñu fonkook sukkandiku ci aada ak cosaan la waaye du ñu fàtte mukk ñi nga xamante ni ñooy nguur ndax dañuy liggéey ak ñoom gën a mën a ñoŋal seen société bi. régulateur social. man nag sama solo wala sama rôle euh, mooy nekk régulateur social mais surtout jàppale bu baax ñi nga xamante ni ñooy njiit yi dox seen diggante ak euh, population bi. nombre d'aspects. moom roi bi am mbégte lool nag dalal groupe B bu kan bi fii ci dëkkam bi di bafu sàmm bëgg nañu. final bi daal di doon kii di Sénégal ak Cameroun. une finale Sénégal. waaw ñu ngi ñaan ci diggante Sénégal ak Cameroun ñoom ñaar nag bu ñu dajee final euh, xam naa li suñu mbébét rek mooy supporter ñaari équipe yëpp. les deux équipes. voilà donc Mamadou Ndiaye qui un petit détour euh, dem seeti ñoo ñee nga xam ni ñoom la ñu tuddee ay baleñ euh, nekk ca dëkk bu ñu naan Cameroun. actuellement nag euh, ña nga euh, fi nga xamee ni moo di bafu bafu sam nag ña fa dëkkee euh, ñu ngi leen tuddee ay Bamileke Bamileke mooy làkk bi ñuy làkk comme genre ñun ñu ne wolof rek y a des termes yoo xamante ni bu dee judduwoo ci wala mosoo koo dégg boo ko déggee mën na la mën na la impressionné ñoom itam noonu la ñuy déggee sunu ay làkk mu leen di impressionné souvent quand tu pars dans ay dëkk yu mel ni Cameroun ñoom dañuy wax ni sénégalais yi c'est un peuple parce que ñun wolof rek. wolof rek wolof rek même dans les réseaux sociaux <laughs> ils ont tendance à nu euh, je sais pas à critiquer entre guillemets euh, ci wolof bi nga xamante ni ñun moom la ñuy gën a làkk ñoom nag euh, lu ñu am seen lakku dëkk am seen lakku dëkk euh, dañu am seen français bopp voilà leur façon de parler français boo demee Côte d'Ivoire am nañu façon bi ñuy làkkee boo demee Cameroun am nañu façon bi ñuy làkkee français boo demee Congo par exemple man j'adore façon bi nga xamante ni moom la ñuy lakkee seen français ba boole ci seen accent ak lingala bi ni ñun itam Sénégal euh, noonu la ñu amee suñu euh, accent ak suñu façon bu ñuy lakkee suñu lakk bi di wolof wala suñu làkk yi nga xamante ni ñoo fi nekk mais quand même euh, on voyage et on découvre certaines choses foofee ca Cameroun d'ailleurs bëri na ay doomi Sénégal yoo xam ne ñoo ngi fa xam nga ni Kebs Thiam moo fi teewal sénégalais yu nekk ci diaspora bi barki démb mu ngi may wax ni boo demee Cameroun Yaoundé capital bi am na benn quartier wala benn dëkk bu tudd briqueterie alors briqueterie boobu. Euh, ni Sénégal bëree sama mbokk yu jógee Guinée boo demee briqueterie yi boobu noonu la bëree ay sénégalais yoo xamante ne ñu ngi fa ñi ami boutique ñi am ay place di dóor waar di daan doole parce que àddina fépp foo dem sénégalais ya fa ne ay jàmbaar yi fàq tëdd lañu donc ñu ngi ndokkeel euh, sénégalais yi nga xamante ne ñoo nekk actuellement foofee ci Cameroun et ci ñoom la ñu yaakaar pour di dem euh, ci matchu équipe nationale bu Sénégal di leen supporter à propos de équipe nationale bu Sénégal coach bi di Aliou Cissé Mamadou Ndiaye mi nga xamante ni moo ñu teewal ca Bafoussam ak Ahmed Niang ñu ngi ñuy xamal ni euh, mu ngi amal ab euh, conférence de presse d'ailleurs on va retrouver Mamadou Ndiaye euh, sur place foofee ca Bafoussam pour mu wax ñu taxawaay ak explication yi jëm ci prochain match bu équipe nationale bu Sénégal paraît-il que defaat nañu yeneen test pour xool ndax amaat nañu am Covid ou pas test yëpp génn négatif heureusement du Ndiaye ñu ngi lay nuyuwaat. jërëjëf euh, El maa ngi lay nuyu euh, léegi la conférence de presse d'avant match bu Aliou Cissé di def ak euh, comme ni ñu koy defee sélectionneur bu Malawi Aliou Cissé moom tey li ci information bi mooy ñëwaat na ci solos match bi mais surtout mbébét bi mu am ngir gagné match bi ngir jël première place bi ndax des fii ci Bafoussam mais surtout préparé gën a préparé ak effectif am mais leneen lii tamit am na mbégte retrouver waat effectif au complet di fàttali ne équipe nationale bi fi ne nii ñoom ñëpp la ñu testé ñu négatif euh, démb séance d' entraînement bi 27 joueurs yi ñëw nañ sauf Ismaïla Sarr sélectionneur Aliou Cissé tey jàkkaarloo naag taskatu xibaar yi comme ni ñu koy baaxoo di defee avant match bu ne euh, Sénégal Malawi mu nekk troisième journée groupe B. bu baax ñu ngi koy waajal euh, depuis pratiquement deux trois jours je crois que tey avènement bi mooy que mën nañu récupérer suñu. suñu joueurs yëpp waaw loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax parce que muy Kalidou Koulibaly ñoom Balou Touré ñoom ñëpp dañu feebaroon ci Covid bi yàlla def nañ ko dëmb reprendre nañu reprendre nañu entraînement yi waaw tey tamit am nañ beneen séance pour pour vraiment préparer match match suba bi ñaan yàlla vraiment ñu dugg ci si bismillahi rahmaani rahim génn si si alhamdulilah rabbil alamin añ ndam présenté lu lu bëri déjà premièrement daf ñuy permettre ñu toogaat fii encore pratiquement euh, une semaine wala quinze jours sax euh, jouer fii suñu huitième de finale parce que xam nañ ni que ci jamono ju ñu toll nii ci récupération ak euh, enchaînement match yi euh, conseil wu ñu que joueurs yi di voyager lu bëri loolu moo tax ñu bëgg vraiment dalu fii toog fii donc pour loolu mën a nekk tamit il faut que ñu match bi suba pour que justement première place boobu ñu mën jël. voilà mu nekkoon euh, sélectionneur national Aliou Cissé dinañ ci ñëwaat gën ko yaatal tey léegi la conférence de presse bi jeex fii ci hôtel Tagidor bi nga xamante ne moo dalal gaynde yu Sénégal. Euh, Sénégal Malawi wala Malawi Sénégal suba la ci bu 16h jotee fii xam naa 15h lay jot foofu ca Dakar. ci kanam ñu ñëw gën a yaatale information yi nga xam ne tukkee na fi. mais merci Mamadou Ndiaye et puis tu es trop fort euh, du Ndiaye qui a perdu sa grande sœur ñi ngeen koy gisee muy wax nii magam euh, dafa génn àddina démb euh, bi muy dem Cameroun mu ngi ko fi bàyyi mu feebar quoi mais bon là il nous montre que il doit fort mu ngi def liggéeyam. Euh, ñu ngi lay masaw bu baax Mamadou Ndiaye et puis on pense à toi tous les jours yàlla na suñu borom gën la dëgëral et puis euh, di masawu sa yaay euh, mère Touré nit ku baax mu ñàkk doomam bu jigéen boobu le ñu ngi masawu aussi famille bi yëpp. Euh, donc Mamadou Ndiaye qui a perdu sa grande sœur mais terewul euh, mu ngi ñuy euh, wax lépp loo xamante ni xew na ca fi nga xamante ni moo di Cameroun ñu wan leen affiche u tay bi pour ngeen peut-être préparer wu xool match yi leen intéressé tey Burkina Faso dina football ak Éthiopie et puis Cap-Vert dina football ak Cameroun dëkk bi organisé Coupe d'Afrique des Nations Mame Fatou Ndoye ak Desku Sport bu télévision Futur Média ainsi que spécialistes yi nekk autour de la de la table euh, ci euh, période du CAN bile ñu ngi préparer euh, ay waxtaan yu am solo pour vous amateurs de foot en attendant le prochain match de notre équipe nationale. midi 21 mooy doog a jot daañu recevoir ci kanam tuuti koo xamee ni Sénégal propre lu ñu ko tuddee fu ngeen ko séenee ci mbedd yi wala ci télé yi wala sax ci internet bi dafay gàlloo ay mbalit. alors moom na kil a une histoire particulière c'est pour ça qu'on le reçoit euh, bu ca kanamee euh, ci émission bi mais en attendant euh, dama bëggoon ñu ànd ak Ibou Diouf ak Pape ne mbay ci événement boo xamante ne ñoo ngi koy préparé tuddee ko festival des peuples des peuples de l'eau xam naa mooy ñu dëkkee ci ndox mi comme ni ko Baaba Maal di organiser blues du fleuve am na itam beneen programme boo xamante ni ñoo ngi ko tuddee festival des peuples de l'eau Sénégal nag bokk Euh, ci euh, invité wu ren bi euh, événement boobu nag nar a am diggante 19 jàpp 20 mars 2022 ñu invité ci lébu yi pour ñu wone seen facette ci wàllu aada ak cosaan thème mu ren bi nag ñoo ngi ko tuddee le mariage des peuples de l'eau peuple de l'eau nag mooy cubaalo yi lébu yi ci boori ndox la ñu dëkk napp la ñu xam ndaw ràbbin am jom nangoo liggéey dégg naa woykat bi ne boo fekkee lébu dalay teeru teral la euh, may la soxna wutal la liggéey bëri na ci ay nit yoo xamante ni ñoo ngi fii ci Cap Vert bu dul woon nag lébu yi du ñu am place fii ci dakaar classe Pape Samba Thiam gi donc lébu yi gàcce ngaa laa ma yéen Ibou Diouf nag dafa demoon fekkee euh, conférence bi amoon euh, ngir waajtaayug événement boobu la nga xamee ni moom la ñu tuddee festival des peuples de l'eau mu ngi àndoon nag Pape Sangoné wala cosaan muy ab ndaje ngir waajal xew-xew bi ñu duppee week-end de la francophonie réewu Sénégal war fa teew ñu ne nag ci culture wala cosaan ak aada réew mi ñu tànn ci bu lebu gi mariage chez les peuples de l'eau lañ ko duppee ñu naan seetoo seet lebu gi loolu war a am ca Yeble Seine-et-Marne ca réew France. qui il faut cette année qu'on Euh, bi ñu jotee invitation bi bëgg nañ ci mais li tax ñu gën si bëgg dañu toll si monde boo xam ni avec l'audiovisuel qui qui qui explose le monde parce que aujourd'hui lu ñu déggul ñu ko existé wul. dina bëri ci ay pàcc ci cosaan ak aada lebu buñ fa nar a fësal bu baax a baax ñu ne loole mën na bokk ci liy jaay destination Sénégal. parce que tey booy jaay Sénégal dakaar ngay njëkkee il faut que tu montes la capitale. notre façon de vivre li ñu am comme infrastructure li ñu am comme route li ñu am comme hôtel li ñu am comme artisanat lu ñu am comme tout ce qui est tànn ci lébu mais dafa tànn lébu pour mu représenter yeneen ethnie wax na ko sànq am na ethnie yoo xam ne tamit macha allah mais lébu tey bu romboon lébu yi solo romb di dem rek sans chorégraphe sans fecc saa dara aar la. ci bile xew-xew nag réewu Sénégal nar na fa teew ñu ne dinañ te fësal musique wàllu pecc ak itam lépp lu jege cosaan ak aada rawatina wàllu làmb loolu yëpp ne xew-xew bu nar a am solo la. bu ci côté làmb ji doo si génn ba am yoon am na ay champion yu bëri yoo xam ay lébu la kon tey buñ jëlee loolu tey ji àndaa suñu Papis ñu war a dem France wane fa culture lébu ak culture làmb mais nag foofu xalaat naa am na naam luy am foofu daal ndax kenn ku ne côté ba nga ma ne daaw dafa war a dëgër bëgg nañ. à travers une au moins on présente au monde entier 5 à 6 facettes de culture de notre pays. week de la francophonie ñu ne nag mariage chez les peuples de l'eau ñu nar ko amal fukki fan ak juróom-ñeent jàpp ñaar fukki fan ci weeru décembre atum 2022 bi ñu nekk ñu ne nag ñu ngi xaarandi délégation bi bàyyeeko réew Sénégal te ñu ëpp ci ñu koy sëq bokk ci askanu lépp waa donc euh, festival bi euh, dinañu ko amal euh, diggante 19 euh, jàpp 20 mars 2022 ñu gis ci papisna un véritable homme de culture un très grand réalisateur bëri na ci ay clip euh, yu ngeen di gis Papis ci boppam euh, moo ko réaliser et puis yaayam nekkoon ndaanaan bu génn àddina ñun ñu bëggoon ko lool mu daan taasu euh, nekkoon koo xamee ni ab ndaanaan la bu kenn dootul werante jur ki xamante ni moo di Papis Niang Ndeye Diarra Gueye ajot Ndeye Diarra Gueye moo daan ànd ak Ndella Xalass moom moo jur papisina donc Papis Niang qui fait partie de ces organisateurs de cet événement moom d'ailleurs mooy promoteur bi donc je rappelle qu'il viendra nous voir très prochainement certainement pour parler de cet événement muy quatrième édition euh, du festival des peuples de l'eau euh, Sénégal donc bokk ci invité yi euh, nga xamante ne ñoo nar bokk ci festival boobule diggante 19 jàpp 20 20 mars 2022 ñu invité ci lébu yi ngir ñu wane facette bi nekk ci seen aada ak cosaan wax naa gumbe wax ndaw rabbin waaye itam ay mool yu mag lañu ndax miin nañu géej ba noppi itam kenn gënu leen xam teraanga en tout cas merci ah Ibou Diouf notre homme de culture bu ca kanamee tuuti daañu ànd ak euh, rédaction bu télévision Futur Média bu ko defee ñu présenté ñu euh, journalu wolof bi euh, ci biir émission bi d'ailleurs dinañu ñëw léegi nii wax ñu lan la ñu fas yéene développé bu ca kanamee tuuti mais en attendant on va écouter quand même de la musique su ma nee musique nag à la kuliyal tey lundi faaw ma mos benn Viviane parce que médecin bi ma ko digal Viviane matin Viviane midi Viviane soir prescription au médecin la boo bëggee nekk en forme alors cette chanson que vous allez euh, que vous allez écouter euh, dans quelques instants bokk na ci tubaab tuddee les chansons du moment moom la xale français naan actuellement moo xam TikTok moo xam Facebook moo xam réseau social bu ti doon tout le monde écoute cette chanson ñëpp a koy challenge loolu nag moo tax euh, way bi atteindre na un million de vues et on félicite euh, Viviane ak staffam continuer de partager continuer de chanter elle nous fait tellement plaisir cette femme su ma waxee rek euh, da di foog ni li ma ko bëgg a tax waaye même bu ma ko bëggutoon ku yabu rek nangul ko moom Viviane Chidid am na nu Youssou nduur ci góor ñi waaye fexe nañu ba am na ñu reine am na ñu queen fii ci Sénégal muy euh, j'allais dire Beyoncé mais Viviane c'est vrai que Amérique ñu dara ndax am nañu Beyoncé waaye ñun Sénégal itam namuñu dara parce que am nañu Viviane ñëpp di roy ci moom bu solee robe woykat yi def robe bu defee chignon haut woykat yi def chignon haut Viviane bu solee blouson sax semaine boobu yëpp da ngeen di gis woykat yëpp blouson la ñuy def tellement day inspiré euh, sénégalais yi ak woykat yi ci woy daf leen di inspiré ci style daf leen di inspiré ba ci feeling loolu nag yàllaa koy maye taalibe Serigne Saliou la ab saalixaa la actuellement li nga xamante ni moo di euh, Sweet Game mu ngi toll ci un million de ñun nag faw ñu féexal ci suñu xol ndax mënul ñàkk on vous l'offre faites-vous plaisir Viviane moom consommable sans danger la da ngay consommer doo doyal way bi mën nga ko déglu deux millions wala deux mille six cent quarante cinq mille fois par jour loolu moo ma dal et je reste convaincu que moo dal sénégalais yëpp elle fait plaisir à plusieurs générations day bégal góor ñi bégal jigéen ñi bégal ay moroomu yaayam bégal ay moroomu baayam bégal ay moroom yi doomam bégal ay moroomam ndax nag Viviane xam ngeen ni ñëpp koy consommé ki la mag ak ki ma mag ak ku toll ni man ñoo koy consommé ngir di enjoy anytime Sweet Game on vous l'offre et on félicite encore Viviane est-ce que pare ngeen pour bokk ci clip bi je vais lancer euh, benn hashtag casting pour ñu bëgg a bokk ci clip bu Sweet Game euh, peut-être euh, ci sama ay plateformes Pape Cheikh Diallo univers TikTok je sais pas Facebook Twitter ou Instagram et je vais choisir quelques filles yoo xamante ni dinañu mën a play game bi ci Sweet Game parce que yëf yi Viviane wax na ko daf koy niróol Skid Game wala Squid Game wala Casa di Papel. Voilà, elle cartonne, on l'aime, donc un million de vues. Félicitations à euh, Viviane. allez midi 34 mooy doog a jot ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média midi plus bi miin ngeen cocktail bi tey on parlera ordures déchets propreté ak Sénégal propre ci plateau bi pour qu'on parle de son parcours de euh, muy jël ay mbalit di ko solo def ko comme genre yére regardez-le certainement xàmmee ngeen ko un peu ci mbeddu Dakar yi on souvent euh, à la télé il est une fois venu Leen donc tey il revient pour nous parler de sa moom mu def option mbalit ku nekk ak li nga bëgg ku nekk ak li nga tànn euh, man euh, tere laa tànn waaye kii du Awa Gueye Awa Gueye toi tu es trop belle I love you so much je t'ai même pas reconnu je te promets je t'ai pas reconnu xam naa li la fi indi Awa Gueye dafa bëgg Viviane ba dafa mujjee dof c'est-à-dire da ngay teg da ngay nekk ci émission teg Viviane daf koy jaral taal otoom jóge këram ñëw daaw si ba fii pour feccee ko fii alors que mënoon na toog këram taal tele bi comme ñëpp wala jàpp TFM ci Facebook bi fecc ko mais elle a quitté chez elle elle est venue jusqu'ici uniquement pour ñëw wan ma ni day fecc suite game bu Viviane mais waykat bi nee na je m'en de ça <laughs> je t'embrasse Awa Gaye que vous retrouvez euh, les après-midi euh, ak équipe yu Aba ci li nga xamante ni moo di euh, c'est tout Sénégal donc midi 35 je disais euh, dinañu recevoir donc Sénégal propre balaay boobu démb ñu ngi doon fàttaliku ki nga xamante ni moo di Ndongolo oui Ndongolo defe naa Sénégal du ko musa fàtte ça fait déjà des années bi mu génnee àddina ak léegi c'était en 2005 rappelez-vous de son parcours rappelez-vous de ni mu ñu yàggee bégal Euh, moom euh, Ndongo Lo c'était en 2005 euh, bi mu génnee àddina ak léegi démb nag àddina yëpp dañu ko fàttaliku fii ci Sénégal ñëpp fàttaliku ko boo demee ci banlieue bi boori Pikine fa nga xamee ni fa la fekk baax ñëpp jot nañu ko fàttaliku moom mi nga xamante ni moo di Ndongo Lo mu ngi génn àddina 2005 bis boobu nag kenn dootu ko fàtte man je me rappelle. Euh, daanaka Sénégal mu ngi amoon ñaari télé RTS ak euh, RTS 2 noonu la tuddoon en 2005 ce jour-là maa ngi def euh, direct di ko rendre hommage moom Ndongo man ak Kebs Thiam presque 17 heures de l'après-midi ba 3 heures ou 4 heures du matin parce que tout le Sénégal était choqué ci génnuk àddina ki nga xamante ni moo di Ndongo Lo Euh, démb nag euh, ñu doon ko euh, fàttaliku moom ndongo xam naa ni xajoon na fi bu fi nekkoon ba tey dina wéy di ñu bégal moom nag Ndongo mu ngi génn àddina 16 janvier comme démb en 2005 des suites d'une courte maladie ñu koy rendre hommage ci télévision Futur Média ça fera des années bi mu demee ak léegi waaye kenn fàttali kenn fàttewu ko ñu won leen extrait wu prestation bile nga xamante ni mu ngi bëgg a yàgg Ndongo Lo mu ngi ko defee woon ca théâtre national Daniel Sorano comme quoi bu ñuy di bëgg ñi ngi jooy Putin, my voilà c'est vrai que ñëpp a ngi koy fàttaliku moom Ndongo Lo def na fukki at ak juróom-ñaar bi mu génnee àddina ak léegi muy dix 17 ans euh, mu ngi génn àddina comme démb 16 janvier c'était en 2005 donc des suites. Euh, d'une courte maladie yéen a ngi koy dégg ci woy boobu mu ngi njukkal Petit Mbay xaritam ba Petit Mbay mi nga xam ne ni euh, yàgg na koo dimbali Petit Mbay d'ailleurs ñu ngi koy nuyu xam naa ni chaque 16 janvier euh, yaramam daw xelam dem ki xam ci ki nga xam ne ni démb ba tey Sénégal ñoo ngi koy fàttaliku Ale Fall Latkura Euh, ñu ngi koy ndokkeel bu baax mi ngi may fàttali euh, ni euh, keroog ci spectacle bi nga xamante ni ndongolo mu ngi ko doon amal ca théâtre national Daniel Sorano daanaka sono bi ñëwul woon donc ci ay baaful rek lu nongoloo doon woyee tellement dafa amoon force vocale bu exceptionnelle c'était franchement l'enfant chéri de cette jeunesse sénégalaise yi xew ay maa xew ak xewuma maay feesleeg feeslewu ma moom defe naa da ko teel a dund moom Ndongo Lo fu mu daan tëgg diggante Ravin ak yeneen club yi nga xamante ni euh, daan na fa def ay soirée ay yëngulee nag ñoom seen da fees en point boo xamante ni euh, ku euh, teelu taan dem ci ay soirée Ndongo Lo doo am place yàlla nag jël ko ci li tubaab naan à la fleur de l'âge mu dem depuis 17 ans chaque année ñu koy fàttaliku fii ci télé fii ci Sénégal ñu ngi xalaat njabootam ngi xalaat euh, ay bokkam ak ñi nga xamante ni àndoon nañu ak kii di euh, Ndongo Lo dans quelques minutes ñu recevoir suñu invité di ndokkeel ñi nga xamante ni tey la seen anniversaire bokk na ci Khadilo alors Khadilo neex a fekk France laa ko tuddee sama jigéen la sama xarit la sama xol la alors Khadi euh, mieux vaut tard que jamais on te souhaite un bon anniversaire bokk nga ci inconditionnel yu Pape Cheikh jàlloo foofu ca France mbokk ndeyam Marème Ndiaye Gawlo sama jigéen sama xarit Euh, Marème bu Jabaay Amary Takoma Ndiaye ñu ngi koy ndokkeel bu baax foofu ca France euh, c'est aussi de la part de Nafi Diagne euh, yaayu Jamila ak Serigne Fallou de la part de Maymouna Diagne ak Jamila mu Serigne Fallou joyeux anniversaire donc a Khadilo foofee ca France ñu ngi nuyu sunu xarit yi nga xamante ni ñu ngi ànd ak ñun ba tey fii ci télévision Futur Média bokk na ci suñu grand di Omar Gueye Ndiaye Omar Gueye Ndiaye nag. Euh, moom daanaka monsieur le maire laa ko tuddee boo ko fekkee wakam ba gis ko mu discours wala mu wax dangay xam ni kii euh, bokk na ci nit yu charismatique yi nga xamee ni Sénégal soxla na leen euh, ñu ngi koy ndokkeel moom ak njabootam ak ñi mu àndal ñëpp Omar Gueye Ndiaye li lébu bi naan aw la may woteel aw la may woteel man xam naa ni su ma dëkkoon wakaam aw la may woteel mais ñu ngi lay ndokkeel bu baax Omar Gueye ak tout la famille soxnaam Euh, fàttewuñu itam euh, Ibou Diop Ndiaye suma mag jaa xamante ni moom laa fekkoon dëkk bu ñu naan France euh, ñu ngi leen di ndokkeel di leen ziar Gueye RFM itam yàgg fidèle ñu ngi koy béggee di ko souhaiter une très bonne journée Adja Touré oui mu ngi may fàttaliwaat ni démb c'était l'anniversaire du décès de Ndongolo oui wax nañ ci léegi nii ba teg image yoo xamante ni ñoo ngi ko jëlee woon à l'époque ci suñuy archives ca foofee nga xamee ni moo di théâtre national Daniel Sorano allez 2022 avant de recevoir notre ami euh, Sénégal propre j'aimerais qu'on le qu'on le découvre tu peux tu peux venir waaye xaw ma nag fan ngay toogee say mbalit bëri na nga gàlloo ko nii tey j'aimerais que tu me racontes ton histoire parce que toujours dañu lay gis nga sol ay mbalit lan moo tax nga sol ay mbalit est-ce que lii réellement mbalit la ñu toll ci période boo xamante ni période Covid la nit ñi di daw mbalit yow nga jël mbalit aakimoo comme ça kaa ah, nag nii la demee dama lay bàyyi nga installé installé wu. j'ai envie de mettre une une chanson d'amour. oui euh, parce que tu sais l'amour ah moom rek moo ñu mën a sauver euh, bu jamono naqaree comme li Coumba Gawlo sekk naan bu coow li jollee na nga kuul waaye man bu coow li jollee du ma kuul damay dund mbëggeel. Et quand je parle d'amour, je pense à nos artistes. Et quand je pense aux chansons euh, d'amour interprétées par nos artistes, daf ci am boo xamante ni mën na maa rey xam naa ni peut-être xamu leen woy bi bu baax et pourtant euh, bokk na ci classique yu musique sénégalaise c'est une c'est une vieille chanson enfin pas trop vieille interprétée par un vieux pas trop vieux Ismaël Lo oui vous le connaissez c'est vrai que am ngeen yu ngeen xewal ci seeni musique waaye on a de très grands artistes yoo xamante ni yàgg nañ ñu bégal Ismaël Lo à l'époque moo woyoon woy bi tuddee woon ko l'amour a tous les droits et nous tous les devoirs écoutez ah donc je voulais me remonter un peu avec cette belle chanson que j'écoute depuis ce matin interprétée par Ismaël Lo ñu ngi koy nuyu d'ailleurs ah bàyyu Marilo nit ku baax euh, c'est un vieux mais très ci continent bi avec cette chanson euh, ñu ngi leen koy may l'amour a l'amour à tous les droits et nous euh, tous les devoirs xam naa ne équipe yi ci ginnaaw ñoom du ñu doyal ci Viviane mais des fois tamit da ngay doyal ci Viviane de sinon boo ci amee overdose du baax da ngay tëdd sax di nelaw naan nangul ma <laughs> parce que man dal na ma quoi damay nelaw ba mu yàgg gént ne ci wetu Viviane naan ko nangul ma nii sa xel man maa cay ne xam nga lii aussi Viviane moo raw Covid de. ay jékki-jékki dugg la. li xale naan dëgg la c'est une tout cas un million de vues vite amul clip donc xaw ma bu clip bi génnee fu ñu jëm ak moom. te saa yu mu neex nag yéen a ngi fàttaliku daaw ci heure bi on a tellement dansé euh, ci effet tere dund woyu nag daf may fàttali tere dund parce que daanaka ñoom ñaar ñoo bokk ay jàpp ñoo bokk ay rab et c'est une très belle chanson Viviane nag dala naan saraax lay day dugg sa yaram comme sibiru Viviane dafa mel ni corona danaan la faraax voilà moom dafa mel ni bii mujjee génn ñu tuddee ko omicron xaw ma xam nga omicron il paraît que dafa gaaw a wàlle Viviane noonu la mel cest dire vite fait ngay americain ngay sénégalais ngay ougandais ngay waa Zanzibar wala ngay yenukatu mbalit Viviane bu la duggee day ne ci yow dana la paraax <laughs> <laughs> atandaliga yelo gulwo tolo nyame ko wawa keba digula la le re après oh bàyyi foofu Fatima bu ko sonal te du ma rab atandaliga yelo gulwo tolo nyame ko wawa bàyyil mu dem digula gis nga may ma wàcceel wàcceel way wi gis nga lii àjjuma dama koy def thème maak Modou Fall ndax lii Viviane wax itam war nañu xool kàddu yi voilà digulal laa lay réeree afta yow laay deseeroo caabi buntu néeg bi bul wut wallu ñame ko donc yooyu ay terme la yu xaw a extraordinaire quoi on en parle vendredi mais nous on Viviane un million de vues avec euh, cette chanson te clip génnagul léegi nag jot na ñu euh, tàmbali euh, waxtaan bi enfin dañ gën a waxtaan juste après journal bi puisqu'il est 12h50 donc 13h c'est dans quelques c'est dans quelques minutes waaye mu nuyoog suma suma xarit man nag Sénégal propre laa ko tuddee am na maire yu ko tuddee eh borom mbalit bi tellement dafa yàgg xeex pour ñu gën a am comportement wu bon citoyen wala citoyen exemplaire sama classe gi ñeme nañu fu nu romb sànni fa mbalit man damay boxum rek ne ci oto bi pare tëmbal on se rend pas compte que ñu ngi yàqal suñu bopp waxuma sax euh, euh, taarug dëkk ni ko mbalit mën ne yàq waaye li mu mën a indi ci ay jafe-jafe ci li tubaab tuddee dérèglement climatique est-ce que xam nga ni dérèglement climatique selon li ma ci borom xam-xam yi jàngal moo indi par exemple kenn mënatul natt seddaay wala tàngaay imaginez lu tol ni mois de décembre Sénégal mel ni été lu toll ni mois de janvier man fi mu ne bu ma faatoo lii ma rey jarul autopsie ndax tàngoor et pourtant nous sommes au mois de au, au, de janvier c'est-à-dire euh, partir de décembre euh, tendance bi mooy après automne pour nous autres tubaab c'est l'hiver et bu hiver duggee ñun ñu tuddee ko jamonoy seddaay donc yére seddaay yooyu génn mais ren ku génn sa yére seddaay rek laqaat nga ko parce que dañoo am li tubaab tuddee dérèglement climatique li ko waral nag mooy sunu ay comportement euh, ci wàllu euh, environnement bi li yaasin euh, naan alam bi loolu nag bokk na ci sa ay combat merci en tout cas d'être de sa ay combat mais dinañu waxtaan ci choix bi pourquoi nga tànn mbalit pourquoi man ma tànn télé ak rajo mhm. yow nga tànn mbalit mhm. c'est vrai que il faut faut du tout ou un tout pour faire un monde mais d'abord dañ lay bàyyi nga nuyoog téléspectateurs yeeg internautes yi mhm. laataa ñuy dugg ci waxtaan bi waaw damay wax rek euh, asalaamualeykum. Mhm. askanu sunu gaal. Mhm. donc euh, di am mbégte bu baax a baax euh, jàkkaarloo ki nga xamante ni moom mooy Pape Cheikh Diallo. Mhm. donc mu dalal ma fi ñu fas yéene fee waxtaan li nga xamante ni moo jëm lépp loo nga xamante ni rek dafay aar sunu aalam ji. ak lu koy jëmale kanam. donc mu doon mbégte moo xamante ni wax dëgg yàlla neex na torop mais maa ngi ci nuyu ci biir nuyoo bi dama ci beral ki nga xamante ni moom mooy sama kilifa. dafa mhm. laa bokk muy le ministère de l' environnement. ah ci ministère bi nga bokk. waaw ci fa bokk donc euh, nekk euh, donc. Euh, kan moo yore environnement sax. Abdou Karim Sall. ah Abdou Karim Sall moo yor environnement wax nga dëgg Abdou ah, mooy paa bi ñu doon wax affaire kéwél yi. kéwél yi ah, voilà. ku baax la mës naa ko invité fan. Mhm. dégg li xaw ma. si si oh, si naa ko. Oh, je l' avais invité nit ku baax la moom. donc euh, mu dox ci nang ci environnement ay jéego yu am solo mhm. yu ñuy rafetlu yoo mhm. xamante ni nit musul woon a xalaat sax ne donc euh, lu mel ni war na mën a am Sénégal mhm. donc euh, ñu ngi koy ci seedeel ci jéego yooyu mu dox ci mhm. vraiment dañ koy rafetlu parce que lu ñu yàgg bëgg la mhm. bi ci topp mooy vraiment di am mbégte ci kër gi ndax euh, kër gi jigadiwuma benn yoon ndax bi ma fi mujj en 2016 teguñu ci une semaine la ma président takkal raaya bi ah bon waaw ah, président mooy nit ku baax kon bu ma jox du chevalier bi la. waaw ordre national du mérite takkal guñ ma ko. waaw non yàgg naa ci sama mi dana ñëw. dana ñëw maa takkal de donc bu ma ñëwee fii. Mhm. donc def fi lu am solo. Mhm. ba tegul semaine lii amaat. Mhm. donc mu wane ne rek donc lii. jégadiwuñ la en fait. voilà jégadiwu leen ma. Mm. te ma ñëwaat fi ci bés boo xamante ni euh, mu nekk bés bu exceptionnel pour man tey. quest mu doon loo xamante nii ki nga xamante nii damaa yàgg dund ak métit damaa yàgg dund ak souffrance ak mbalit bi mhm. pendant dix-neuf ans mu accompagné ma musta daw musta dellu ginnaaw mhm. donc bésub tey bi nekk sunu anniversaire u dix-neuf ans de mariage ah sa jabar muy soxna si ah. donc xam nga mu doon euh, macha allah hasard amul en fait gis nga moo tax euh, bés bi tey dafa doon bés bu ala daw nu mu def ak mbalit yi parce que c'est un peu euh, dafa xaw a bizarre. non rek daanaka yaa koy def Sénégal. jël ay mbalit rek gàlloo. balaa ton histoire à sa jabar moom comment comment naka la ko war a dundee. jooy na guddi jooy na bëccëg. Ah waaw xam nga dafa neexul ci xol. Mm-hmm. nga dem ci xew. Mm-hmm. ñëpp sañse toog sa jëkkër sol mbalit. nekk ci biir télé àdduna yëpp di ko seetaan. Mm-hmm. donc bu génnee ci di dem marché ñu ne kii jëkkëram moom mooy dof bi ñuy wane temps yi ci tele bi. ba ci sama doom yi nga xamante nii dañu doon jàng ci école yi donc dañ doon am difficulté boobu parce que dañ jàpp ne seen papa dof la seen papa dafa dof parce que pourquoi donc soit boobu donc nit mënuñu xool ngay liggéey nekk ci condition yu baax am salaire bu baax xëy bàyyi ko rek dugg ci mbalit donc y' a mais yow tamit ni nga ko defee moo extraordinaire quoi mënoon nga di sensibiliser. wala di wax nit ñi ñu dem tuuri mais yow mbalit yi nga jël sol. waaw xam nga dañu dañu dañu xam nga lii biñ koy biñ ciy dugg c' était en 2006. 2006 mhm. donc euh, boo mësaana taxaw station bi nekk lamin Gueye bi ci suuf. Mhm. da nga daan seen. auteuru mbalit mi ci kaw marché Sandaga mhm. donc euh, ci kaw balcon yi mu mel noo xamante ni lu ñaaw Mm-hmm. donc marché Sandaga laa doon liggéey comme commerçant. Mm-hmm. mais li ma ëpp ci li may am ci client. képp ku ñëw danaan la seen réew mi neex na trop. waaye sant rek moo ko yàq et c'est ça qui m'a poussé donc ma démissionné ci place bi ma doon liggéeyee. Ah. pour wane ne tey jii réew mi mën naa set doomi réew mi dinañ ko setal. Mm-hmm. donc loolu moo ma dugal ci engagement. donc sa sa sa famille dund ci ay difficultés sa doom yi bu ñu daan dem école dañ leen daan tooñ. après finalement da leen jëlee ci école bi. non dañu continuer di nekk ci école bi. mais école yi ñu nekk. duma fa mën a dem di fa def prestation parce que damay dem ci école yi di sensibiliser éducation environnementale donc nga xamante ni donc euh, ku mel ni sonateel dafa may gunge chaque année. Mm-hmm. may dem ci école yi mais école yi sama doom di jàngee. samay doom dañ maa ñaane ne ma papa bul ñëw ci sunu école. parce que sonn nañ fatigué nañu. ci euh, ñaawal yi nga xamante ni. genre seen papa mooy dof bi sol yére mbalit yi. mais alhamdulilah donc euh, c' était un peu difficile. parce que mm. bu njëkk boo génnoon ci mbedd bi dangay ngay dajeeg nit sax mu gaare otoom di la sarax parce que comprendre ñu mm-hmm. ce qui se passe. Mm-hmm. te pourtant fu ñu toogee ci grand place yi wala ci yenn bërëb yi mbalit mi ci dëkk bi la ñuy waxtaanee. Mm-hmm. et c' est ça qui m'a mbalit mi nga xamante ni ñi ngi koy gis ci euh, buntu région yi ci sorti région yi nit ñi di ko waxtaanee fu ne mmh. pourquoi pa mbalit moomu mun munta ñëw ñëw fekk si leen ci biir fa ñu nekk ba ñu xam ne mbalit mi yóbbuwul boppam foofu mmh. mais ay nit a ko fa yóbbu mmh. te loolu ñu yóbbu foofu tey jii doon na phénomène boo nga xamante ni bu nit ñi fàttalikoo ay jamono ci ginnaaw mag ñu bari dañ daan lekk suuf parce que da nga daan wàqi suuf si rek dagg ko mu mel ne ay wogg rek nga lokk tey tey jamono ji ñu toll nii kenn bëggul sa doom di ci suuf si. dëgg la parce que ndax pollution bu bari suuf si salte na. Mm. microbe yi bari na. je pense qu'on ci sa combat. c'est ça euh, dans quelques minutes. Euh, priorité au journal exactement mm-hmm. euh, midi 57 on enchaîne avec une page de pub. juste après vous en wolof ak rédaction bu télévision Futur Média et puis juste après le journal waxtaan bi ak yaa xamante ni moo di Sénégal propre. en plus de son histoire dinañu gën a sensibiliser euh, ci euh, cet gi fii ci Sénégal.